tey oustaz dañuy wax ni ku laal diine moom jarul sax ñu maanaam mën nañu wax ni bërëb bi tey day fees oustaz dootul am jot tey ñu laal ki nga xamante ni moom ku ñu ko laal eh, dëgg-dëgg xool yëpp jax jaxe mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni jamono ji doy na waar kenn xamul tey nit bu jógee fële naan ma woote yonent fële waxatuñ loolu waaye nga dem ba dugg ci dimension dugg ci ay 18 yonent bi oustaz loolu ci jamono doy na waar trop. Euh, sëñ Mountakha xam nañ lu bëri. xam ne lu bëri mais dañuy bàyyi yàlla jëf ko mais duñ ko wax parce que bu dee mbëkk bu jóg uuti diine xam nañ lu bëri amul beneen diini nag bu ñuy laal ci diine yi fi ne du ñu laal diine juif du ñu laal diine chrétien diine musulman rek ti adduna bi. islam jullit yëf yëpp. dëgg dëgg wallaahi. gis nga bu leen neexee. bu leen naqaree adduna bi jullit yi ñoo fi pour ñu wàññi leen. mënul nekk. man léegi-léegi nit wax ma dara damay couper rek ne ko baax na parce que damay xam ne c'est impossible. gis nga bëri na yu ñuy mëni gancé ci réew mi ay naxaate ay waxi caaxaan foo ñuy mujj mooy mbëkkante. man maa la fa ñuy mujj mooy mbëkkante parce que nag ay bandi mhm. suñu àndee sàcc ñoo war a séddoo mhm. ku leen bëgg a nax yaa indi xeex mhm. kon ñun dégg naa sax ñuy wax ni woy jéggal nañu ko te génn na baal waat dégg loolu woy jéggal nañu ko nañ ko jéggal ndax foog nañ ne tayu ko moo ko tay màndiwul toxul yàmba geensul forcé wuñ ko nelawul maa ko déglu ñun xamuñu daf ne kan mooy ndey yonent kan mooy bàyyi yonent lim jiital mooy ñun xamuñu bàyyi yonent bi xamuñu ndeyam loolu la jiital teg ci ne nag kan mooy ndey yonent bi kan mooy baay yonent bi kon bu jëkk bi dafa jiital ne xamul hmm? bu ñaareel bi mu indi laaj ne kan mooy ba ca mujj mu ne yaayam yaay yonent bi gënu baayam baay yonent bi gënu ko mais Aminatu taxawul ne la maa gën sa yaay doo bàyyi jàmm Abdoulaye taxawul ne la maa gën sa baay yenent bi taxawul ak yow ne la sama bàyyi gën sa bàyyi sama ndey gën sa ndey mais yow koy waxal kon kan de dama leen di laaj ku muy waxal su doon Aminatu dafa ñëw ne ko yow kat maa gën sa yaay wax yaayam ne ko maa la gën Abdoulaye ñëw ni baayam maa la gën mais Aminatu nga tëdd ca màkkatal mu karam Abdoulaye nga tëdd ca màkkatal mukaram Aminatu mooy ku ñu wóolu Abdoulaye mooy jaamu yàlla Moustapha nga tëdd ca Madinatul Munawwar suuf waar ko nga jël yaayam rek di ko wax lu la neex teraayam bu rafet bee dem naa ba tim tëdd ci jàkkaan ñu jël ndeyam di ko fooye ci réewum senegal te fii lañ fi caricature ngeen dem l'Obélisque la xaw ma def seen daje yi sànni ñaat téeméer rek sànni téeméer ku ne takki morso pour lan ngeen toog ci réew mi ni dal ci yonent bi dal ci ndeyam ngeen naan baal nañ ko dale naa tooñ ba ngeen koy baal daa laal seen yaay laalu seen yaay laalu seen baay kon yéen du yéen a koy baal yonent tubee ko war a baal na dem Madina ay génn baalu mooy lan kan lay baalu ñun tooñuñu ñun lim ñu war a baalu mooy nabi suñu royukaay la suñu soppee la tàngal na suñu xol mu ne baal leen ma seen xol yi ma tàngal loolu la war a jéggul bi ci des nag mooy baalu ak lim wax na lagg Madina ci góor gi jël avion acca nga dem ba tiim ko nga répété li nga waxoon ci kanamam ne ko damaa ñëw pour nga jéggal ma du ngeen kenn ci kanam Moustapha bu leen ñu fontoo waay du ngeen kenn laa wax ci kanamu Abdallah kanamu Aminatu kanamu Rasulullah yow yaay kan ak yéen ñi ci des yéen ñan ñiy baale fuñ ko teg tudd ñu seen yaay tudd ñu seen baay ngeen di baal yéen yeneen jan nañu baalu mustafa moom la ñu tooñ Abdoulaye waxul Aminatu waxul Mouhamad waxul politique leen te ña toogoon ca palaato ba kum ci tuddoon sa ndey tudd sa baay nga dal ci kaw lu tax ngeen bàyyi ku muy tudd ndey yonent bi di tudd baay yonent bi ba ñépp di coobe loolu ay nit taxaw def ay vocal ñii vidéo ñii dem ci ay télé ne baal yéen lu ngeen baalee xanaa aali kalaj ji da leen a kalaj yéen kii mu tooñ yonent bi dal ci ndeyam dal ci baayam tooñ Abdallah tooñ Aminatu ngeen sañ a toog fii naan jég jéggal nañ ko ak jéggal leen ko ndax jéggalu na ko muy jéggalu kamu tooñ la war a jéggalu kan la tooñ mooy rasulullahi ak baayam ak ndeyam ñoo kooku la war a jéggalu mais waruñoo jéggalu ñun lim ñuy jéggalu mooy suñu xol yi mu tàngal ndax ki mu laal kenn du ko laal su paree mu dem ci nabi jéggalu ko ndax ndeyam ak baayam mi mu laal waaw lu xew mënul leen a ba l'islam bi naax saay mënul leen fexe ba diine ji yàq day gën di dox rek pexe yi ngeen nas wax yi ngeen def lu diine bi ngeen jël du sot man nag bandi laa woyu laa moo tax ma làqu ci gannaaw yàlla ci gannaaw mooy duuma ñëpp ëllëg su ma làqoo ci moom xaritoo moom dana ma baal waaye lu waay laal ci diine ji koo mën a doon dinaa la tontu bu ñu kenn rek mais bi ci des nañuy araftu seen i njaboot ku nangoo njabootu ci kilifa na la araftu ne la waroo wax lii bay leen yi ngeen di wax ay tayu ko moo ko tay bay leen yooyu bàyyi leen seen wax yi moo ko tay moo ko tay moo ko tayaatoo waaw ku toog wax lu ko nekk man dama xamul sax lu fi indi Aminatu man damay seet wax ji ba xam lu fii indi loolu Aminatu lu mu ut senegal Abdoulaye lu mu ut Sénégal yeneen bi dox na la muy dox ba tëdd Madina yaayam tëdd màkk baayam tëdd màkk muy lu ko indiwaat Sénégal ah lan moo ko indi fii ci suñu réew waxtaan wu lu fa dugal loolu yow sa yaay bu baaxee jërëjëf teen mhm. sa baay bu baaxee jërëjëf teen bàyyil keneen ak ndeyam ak baayam waaye bul bul bul bul bul dendale bul dendale ki ñu jural ki fi gën muy oh. Muhammad nga bul dendale yaayam ak sa yaay bul dendale baayam ak sa baay bul dendale sa bopp ak Moustapha jaaduwul ku ko def tegoo ko fen mm. fen fen tabarkalla jërëjëf oustaz yaakaar naa ne tom li mu wax noonu askan bi nañ ki bàyyi waat xel bu baax a baax a baax a baax yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam looy dund ci moom lu mu tuuti tuuti tam buñ ko laalee moom dafay am fooy dimension booy dem ak fooy toll